jëre ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne dellu siwaat nañ fi nga xamante ni mooy jàmmaarloo ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo ci wasaare tey nag mbokk yi ma dalal fi koo xamante ni ndaanaan la ma dalal fi koo xamante ni bi mu bëree léegi yàggul waaye bi mu bëree léegi coow lu bari na euh, yu ci bari daal am na ci muy Bulldozer ma dalal ko fii bëgg waxtaan ak moom ci carrière li nga xamante jot na ko jàll ak ci combat bi mu jógee ak li nga xamante ni moo nekk ci kanamam ndax euh, waroon naa ko fee dalal ak keneen waaye kooku dafa mu empêchement wala boog ñëwagul moo tax ñu mujj koo defee nii ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog waxtaan wi Bélisa nuyu naa la. waaw oh, maa ngi nuyu baax a baax Ouzin di wax onze bi nga xam ne seetaan nga jëm bisimilah maa ngi koy ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jug si yoon bi. Hmm. di sant suñu ñaari waajur xam nga di sant famille américaine bi yëpp. di sant sëñ di Mbacke alxuraan bu baax a baax a baax. Mhm. di sant di nuyu ñëpp si koor gi di baalu ak ñëpp xam nga di nuyu ñëpp di nuyu suma xarit ma àndal muy kaw. Mhm. nga di nuyu àdduna. Mhm. di nuyu àdduna yaa ngi ci yaa ngi kii Malika Mbolo ah. waaw ci ñoom ci ñoom. Euh, ngi si onze combats maa si onze combats. nekk si dix victoire benn défaite. daf mel palmarès bu baax la de. kañ nga dugg si làmb def. man fin saison deux mille deux mille deux mille deux mille seize fin saison deux mille seize. ok fin saison daal deux mille dix sept. waaw kii ko quatre ans xaw ma cinq ans a ko mën a Riu Coor numéro deux. Riu Coor numéro deux. waaw ma fa am dofu jaas daan ko jóge fa mën a booy barñi ma daan ko après si ma dugal si karaaf. Dieye mm-hmm. moo dëggoon karaaf bi man Mbagnick Kéré Boy Bargny ak Bathie Seras numéro 2. ma ñëw première journée bi yàlla dogal ma ñàkk Bathie Seras moomu daan. sa waaw waaw deuxième journée bi am Mbagnick Kéré. Mm-hmm. daal di koy daan. troisième muy final bi muy nekk man ak Mbagnick Kéré kii man ak euh, Boy Bargny. Boy waaw ma daan ko daal di gagné final daal di gagné karaaf bi. Mm-hmm. bi ma fa jógee daan Paul Daaru am daan Arias Biram daan euh, kii nu mu Brise de bu Thiaroye Brise de Mer bu mujjee bëre fan yi daan ko daan gin bu yof daan Thiatou Yarakh onze combat dix di benn défaite dinaa ñëw sa diggante Thiatou Yarakh parce que euh, sa ca sa diggante Thiatou Yarakh coow lu dafa bàyyi woon mais balaa maa ñëw ci loolu sax mais dañ la gis lu ci ëpp dama lay gis ci lutte simple bi ngay wàcc foofu di compétir mhm. la moo waral parce que ñu ci bëri mbiru arène bi dañu gis yenn booy yi duñ nangu wàcc lutte simple la moo waral ngay jógee ci ci ci lutte RFA bi di wàcc lutte simple bi. waaw moom ay xaga xam nga. te dañuy ne chaque jour xam nga mooy loolu tey mbër gañ tamit lu simple man ba si nekkee yàgg na parce que tey jii nit mbër balaa ngaa bëri ak di nga dugg mbapat bëri mbapat boo yi xam nga. Hmm. tey ji loolu moo ne animé ba léegi nii tey jii bëgg-bëgg boobu nekk si ñun ba tax mbapat bu am ñun dañuy dem wàcc dem bëri compétir des fois yàgg wërsëg ñu si ñu gagné. mais dama lay gis da nga ciy bëri yu métti yu yàgg. waaw daaw bëri naa si daaw bëri naa si nag combat bu métti man no damay gis que ah, yow say say say say mbapat moom dama lay gis day metti day yàgg xaw ma nu mu demee noonu. non ay combat xam mbapat moom moo nekk loo xamante ni mhm. ñu a bëre. Mhm. duñ sa waay gars yi. mais da nga xam ne loolu tax duñ sawar duñ sawar dem foofu. waaw xam naa loolu mooy tax duñ sawar mais tamit loolu moom wax dëgg yàlla mbër moom da nga war di compétir xam nga mbapat moom. Hmm. mooy loolu mooy nawetaan mbër da ngay compétir xam nga dem yaa nga def boo amee combat aden dem bëri ko ñun nag la ñuy. li nga li nga ci li nga ci jot a jël ci ci ci ci ci mise bari na. waaw bëri na moom mënuma ko compter wax dëgg yàlla. Hmm. waaw mise moom wax dëgg yàlla jël nañ ba doyal ci àll beeg xam nga adrien yëpp dañuy. am nga ci ay nag. waaw bu baax a baax a baax. Hmm, am na gi sant yàlla non man moom du ma am dem ba parce man aw ma fu ma yar. ok te aw ma jotu yar tamit. yaa ngi dégg maa ngi beneen job ma jox amu jot a yar moo tax bu ma am nga damay ñëw jaay. mu ngi jaay jël xaalis xool leneen def xool loo ci def man noonu lay dundee gisee làmb ji. Hmm? waaw ji moom xam nga. nice mi ngi dox nice. Hmm, mu ngi dox ci sa côté mais dama gis mbër yoo xam te ne. xam nga tey jii mbër yi ñëpp tey jii même même si liggéey bi nga liggéey tey jii maanaam ñëpp mënuñu am satisfaction à cent pour hmm. parce que ku nekk si ni ngay gisee sa bopp. làmb tey jii. man amaguma si dara yaa ngi dégg maanaam tey ji pour fi ma teg sama bët quoi yaa ngi dégg amaguñ si dara mais terewul ne te jii promoteur ñi ngi tëgg ku ne xam na ne gàmb jamono ji dafa parce que sponsor amul. Mm-hmm. gàmb ji amul sponsor mbër yi il ñu d'accord loolu promoteur yi ñu si bëri ay promoteur privé lañ. Mm-hmm. nekkul promoteur yoo xam dañoo maanaam xaalis bi ngay fay dañ dañ ngeen koy may wala nangam nangam. Mm-hmm. promoteur yi dañuy liggéey feneen am benn weccet ñëw tëgg combat di ut ñu si am. xam nga. loolu tamit mbër yi faa ñu comprendre loolu promoteur dafa bëgg ay promoteur privé. Mhm. xam nga mbëri mbëri faa ñu comprendre loolu mais bu ñu bëggee xam nga yëpp yan ko promoteur yi war affaire yi demee noonu rek day méttee. moo tax moo tax jamono ji mbër bu su mënta mobiliser da ngay am programme. Mhm. que ramb moo amul sponsor. noonu la demee mbër yi nag nañ jéem a di mobiliser. noonu nga jël seen xaalis di ci jënd ticket di ci jox booy ñu dëkkal. waaw mais bien sûr. bien sûr ba am si tey jii parce que tey jii dara mënul xëy xëy xëy sotti. déedéet mënoo xëy bëre tey jii ne tey damay fayee ko ay millions par force par force wala làmb tey combat bi dama si am xaalis par force mënul nekk. Mm-hmm. làmb ku ne xam na ne tey jii bu amul sponsor gis nga yeneen yeneen sport yi ñu koy tëggal sport yooyu dañuy am sponsor xam muy neex mais làmb ku ne xam ne bi nga si gëjee gis bi nga si gëjee gis euh, maanaam tab sponsor rek yàgg na xam nga. dëggat boobu dama ko ma mën làmb xanaa ay combat yi yenn combat yu mag yi te ay sponsor yu ndawee doon boog yooyu mais gisoo mais gisoo si benn sponsor xam nga mais promoteur yi ñoom ñi ngi tëgg ñi ngi góorgóorlu xam nga ñu ngi tëggee combat te promoteur yi ñuy tëgg si combat si saison mais bëri na xam nga bëri nag ñun góorgóorlu hmm. mais bu ma ñëwee sa digganteeg yaa caatu yaa caatu yaa foo ko laajee danaan la boobu daf maa topp moom topp di ma laaj moom ma topp di ma dëkk yaa doon dëkk caatu yaa musuma koo dëkk xam nga caatu yookax man sama combat ak moom. ni mu mhm. taxee man maa nekk mbër boo xamante ni dama nax nga ut ak adversaire mhm. xam nga tax ma nax nga ut xaw ma la parce que tey jii da man dañu dox sama. combat yu bëri mais gisuma gisuma gisuma sa boo fi tàng. wala mën xeex boo fi mën xeex ba booy di la daw. waaw yow gisoo ko mais mbër yi si boppam. Mhm. parce que man sama combat yu dañ koy dox. yaa ngi dégg mais après day yàqu te du yàqoo si ñun si mbër bi ngay yàqoo yaa ngi dégg caatu yookax man ak moom. sama combat ak moom yaakaar naa si benn fan lañ ko dox sama côté man mu sotti. sa côté yow te moom tamit nee na si benn fan nañ ko dox mu sotti. man dama xëy suba gi avant sama ménage di boobu Modou Mbaye moom njëkk a woo ñëw sa combat yaa ngi caatu yooyu Fallou Ndiaye bëgg na ko. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ma ne ko waat man du ma wax ak promoteur. yaa ngi dégg ma ne ko wol na yoo Mataan Ndiaye. Mhm. yaa ngi dégg suba gi. ngoon gi bi may dem entraînement. yaa ngi dégg ay 17 heures 18 heures. Mm-hmm. ngoon gi si ma sama Matar Ndiaye woo. Mm-hmm. ni mu Fallou Ndiaye woo na ma bëgg na sa combat yàgg caafé ka. yaa mm-hmm. dégg ma ne ko ah na ay morom lañ ñu bëre. yaa ngi dégg mu ma waa baax na man yàlla dafa dogal sa ménage du ma wax ak moom sax si ay kase. yaa ngi dégg mu jékki-jékki woo ma benn sens bi ma diggee bi may jógee entraînement la woo ne ma combat bi taxaw na. yaa ngi dégg ma ne ko waa si benn fan laa la wax. loolu laa si am tëkku ko. musuma làmb moo ñu boole woon ay morom gañ ay naataangoo gañ mu nekk si dynamique de victoire mu nekk si dynamique de victoire yàlla dogal ñu boole ñu suñu làmb taxaw amul tëkkunde musuma toog tëggu ko musuma toog fenn man xalaatuma woon sax ne pour man mënoon naa am adversaire sax yu gën a kii caatu que toogoon naa xam nga tey jii ku daan bi jamais de daan ay xam nga. jiin daan jiin bu yof. Mhm. xam nga tey ji war nga am war nga bëri ak. war nga jégee pas quoi. Oh, parce que man dama booy man maa si ëpp combat choc yu ma bëri. Mhm. combat boo xam man mosuma am combat ñu jox ma favori bi may dugg si karaaba sax dañ ma ne woowee su woon dugg naa ma nangam ñi nekk ñoo ko mën. Hmm. yaa def ma gañe ko. noonu barki Alxuraani kër mosuma am combat ñu jox ma favori te combat yëpp dem génn. mais nga ñëw sa combat yaa caatu yaa caatu mhm. yaa li nga ko ñëwee ba di ko laaj. bu bés baa da nga taxaw dëggal sa bopp. Mhm. yow ak moom làmb boolewu leen bés bu abit bi yàbbee bi nga mu yow nga xam ne moom du sa morom. wax ji bari bu ñu gisee ni muy waxee. Mhm. ñu ci bay de naan Thiatou Yarakh bu jàppee Bulldozer da koy lekk. xam nga dégg naa keroog dégg naa seetaan naa émission bi mu def fii muy wax xam nga. di wax yoo xamante ni mooy. ñëwal ñëwal ñëwal ci kii ba pare après dina ñëw dina ñëw bi làmb ji jeexee. moom nee na kase yi nga jël tamponné ko ci fooy bi rek. drapeau bi su ko neexee drapeau baa ngi ci moom yooyu yëpp dinañ ci ñëw. mais ngeen ñëw ci digg géew bi. Mm-hmm. Mm-hmm. dig ñëw ci digg géew bi. Mm-hmm. Euh, li mu doon waxee. ni mu doon waxee bi ko gars yi seet avant làmb ji bi mu ñëwee commencement bi loolu la andi dëggal ko sa diggante yow ak moom. biir laa fi waxee kitaab bi ma ko déggee mu wax keroog man ba seer man sax damaa gis ku ne xam na ne Bulldozer. waaw non ni ñëw ci combat bi. waaw ni ñëw ci combat bi loolu après dinañ ñëw kenn xamuma kenn hmm. xamuma. tey jii ay de tapette. wala dellu ginnaaw dañu bëri man ak moom. stratégie de combat day am mais bi mu dalee sa kaw. non pas dal sama kaw dañu bëri man ak moom. non bi ab sifflet maanaam waaw génn ma. Mhm. yaa ngi dégg ma déplacé ko parce que moom ëpp poids moom gën a diis. xeex ngeen. ma déplacé ko man maa man maa xeex ak moom. yaa ngi dégg moom moo njëkk a déclenché xeex bi premièrement moom moo njëkk a déclenché xeex bi xaaju dóor moom ni muy xeexee baaxul. yaa ngi dégg. Mhm. moom pied gos ngay teg yaa ngi dégg. ngay day armé waxu gauche bi mais waxu dugaat ngay dóor. day dóor yi nga xam dégg. day gaaw. Mhm. day day day day yor. te ñun man yàlla def na man mënu ma nekk dara man bu dul ràmb maa ngi compétir boxe Sénégal yaa ngi dégg. Mhm. tey bu dóoree damay annière benn pas yaa ngi dégg daal koy dóor kooku te dóor yi ma ko dóor yëpp day dal te moom premièrement bi amul benn dóorante bu ma dóor amul benn dóor bu ma dóor bu dal barki alxuraan kege. kóom dalu la. yàlla mu jógee fi mu toog si premier kii bi premier euh, kii bi avant premier chute noonu nga ko def an yar mu ñëw bi mu ñëwee moom moo song man maa ko dóor mu song bi mu songee dóor uppercut moom mooy uppercut bi yaa ngi dégg mu ñëw di ma caxabal yaa ngi dégg ma daal di wetu daal koy takk. Mm-hmm. bi ma ko takkee bëgg koo tegal seize. yëpp si karam. Mm-hmm. yaa ngi dégg man tam ma sànneeku si ginnaawam mu déclenché mbot moom moo déclenché mbot bi mais ni ma sànneeku si ginnaaw maanaam action boo xam man maay force man maa koy force pour mu déclenché mbot bi mu déclenché mbot dama koy yokk si kaw. damaa bal waxam si kaw daal di koy yokk ba pare sama tànk bi mu ronk si kaw dama koo génnee ça veut dire loolu bu doon Bombardier wala Balla Gaye sax force seen kanam muy jiitu. Mhm. yaa ngi dégg loolu ku seetaan làmb ji. yaa ngi dégg di nga xam ne carrément làmb ji moom féete na boor. ci ci ci première chute bi lan la teg dënn bi la teg wala bopp bi la teg. dafa moom boppam dafa njëkk a ñëw. Mhm. dugg ba pare dënnam daal di ñëw man may soo a yegg si. xam nga mais nag arbitre c'est le maître du terrain. Mhm. yaa ngi dégg. arbitre bi foofu noonu dafa amoon droit joxe victoire. Mm-hmm. parce que dafa laaj kenn ki kenn ki ne ko Bulldozer moo daan. Mm-hmm. mu dem si keneen ki ku ne xam ne arbitre anglais yi ñuy mm-hmm. ne ko njaax. moom dafa amoon jox ma victoire. waaw mais dafa ñëw sifflé waat xam nga fan nga amoon droit sifflé waat. muy tey ko Bulldozer moo daan kii ne ko Thiatou Yarakh moo daan. ok wala mu dem si kii kii na ko njaax mais kenn ki dana ko Bulldozer moo daan kenn ki na ko njaax la. waaw mu ñëw jël initiative jël jël jël responsabilité dem sifflé waat gàmb ji Mhm. te ak bi mais moment boobu bi mu leen woowaatee pour pour siffler waat leen. Mhm. jëlawoo intention reculer wala. boobu déedéet déedéet wax naa ko nee naa ko. Mhm. nee naa ko kii daan naa ko kii nee naa ak kii daan naa ko. yaa ngi dégg mu ne mën noo déggee bëggaat beneen ak bi mën ko baat saa nga wax mu ne ma mu ne ma noo bëreel affaire yooyu. yaa ngi dégg ne ma noo bëreel yaa ngi dégg après xam nga li yoon may moom si boppam abit bi kii abit assistance bi boobu wax na ma ko. mu ne xam nga li yoon may. xam nga li la yoon may après. mais ñun dañuy àndal suñu gëm-gëm rek bëre. parce que ak biir cinq mètres du terrain mu bëre yàgg dogal ñu bëre man ak moom. mu dawaat comme action ni ñu defoon. ni ngeen defoon mm-hmm. yaa may man maa déclenché si xeex dóor ko mu daw ñëw. dóor ñu dóogante bañ jàppantee man ak moom si lañ xeex yaa ngi dégg di dóogante hypercule yaa nga def ma dóor ko hypercule fermé ma sama loxo dama woon bëgg si sama baagam. Mm-hmm. yaa ngi dégg ma bëgg sa waat si xam nga ñu continuer sama wax mënut ma koo ngëpp. mais xam nga comme que ñun ay mbër lañ te yàlla dogal na mën nañ bëre. Mm-hmm. ma ne naa ko bàyyi bu mu tànte action. yaa ngi dégg moom bu tànte action. mu mm-hmm. daan ko si. yaa ngi dégg. Mm-hmm. yàlla mu tànte action daan ma si. ñu jox ko victoire mu dem. yaa ngi dégg man nag bi ma ñibbee xam naa li ma yoon may. si si lendemain bi ma def ko tamit déposé sama recours parce que premier sud bi ñëpp xam naa ne daan na man balaa maa génn stade lamb ji nangu nañ la man maa daan. yaa ngi dégg nekkoon nangu waaw moom premier bi ni mu ko actionné rek xam na ne carrément moom daan na moom bi abit woote waate sax da hmm. xam nga ma def gi ma yoon may def ko court yaa ngi dégg bind jël benn vidéo dugal yóbbu déposé hmm. fay vingt cinq yaa ngi dégg hmm. ñu teg si une semaine recours bi génn sama ménageur woo ma ne ma dañoo confirmer victoire du Thiatou Yarakh ba tey ñu joxaat ko ndam waaw ñu ne ma dañoo confirmer victoire du Thiatou Yarakh bi nga indi baaxul ku ne xam ne kooku boo koy déposé rapport bi boo ko bindee boo si juumee boo ko bindee bind bu baaxul sax yaa ngi dégg di nga bëgg doo ko am. yaa ngi dégg vidéo bi ma yóbbu ay pause yaa ngi dégg. vidéo bi nga njëkk a yóbbu. waaw dafa am ay pause yu si ne ñun ma war a pause parce que boo ko bu vidéo boo amee pause mën na am da montage du ñu xam ndax da nga koo montage wala da nga koo def nangam. ok bu baax ak boo xamante ne lamb ok mais jii mbër yi dañu mbër yi dañu war jàng si loolu noonu di nga gis mbër moo xam ne day def recours baaxul Hmm. nga mu découragé ne non du ma jëgaat sama cinquante mille di ko fay CNG. parce que premier premier recours bi vingt nga joxe. waaw def appel. boo def appel nga def appel. fay cinquante mille. bi may def appel damaa fay cinquante mille. ñu bëri naan ma ñu bëri sax doon nañ ma wax. naan ma jaru ko ay jaru ko CNG ma man damay topp bu mu sës damay def li ma yoon may. yaa ngi dégg hmm. man amul kii dama koo daan jël dugat naññe. Hmm. yaa ngi dégg CNG dégg naa ko ñu wax vidéo moo baaxul dinaa ñu jox vidéo yu gàtt naññe. ut kër si ñetti vidéo yu gàtt naññe. yaa ngi dégg suma ménageur Matar Ndiaye bindaat rapport yaa ngi dégg ñu déposé waat. Mhm. bi ñu déposé waatee yaa ngi dégg xam nga boo njëkkee def recours. waaw maanaam ñoom gi ñu jaaxle gi naan ay tampon ay bokkul. maanaam commission bi nga xamante ni mooy CRD mooy CRD. waaw mooy commission règlement et discipline. bi nga mhm. xamante ni boobu ki ko jiite mooy kii nu mu tudd Souleymane Boun Daouda Diop. Mhm. moo fa nekk moom mooy moom mooy moom mooy commission bi. waaw yaa ngi dégg. moom ñoom ñoom moom ñoo fa nekk ñoom ak ñoom ñaambe bokkut ak commission d'appel CNG dafa am commission bi nga xamante ni maanaam commission règlement discipline bi ñoo ñooy gérer recours booy def appel ñoo duñ ko gérer commission d'appel ñoo koy gérer. Hmm. kon scientifique du bokk. yaa ngi dégg si commission d'appel ñambe ñambe mooy mooy signé ak Biras Sène. Hmm. président mi nga xam mooy président CNG. Hmm. yaa ngi dégg ñambe seen mooy secrétariat mooy secrétaire de séance bi. ok yaa ngi dégg. noonu la demee bi bi ñu dafay appel ma joxe ñetti vidéo ñu xool gis mu gën nañ yaa ngi de ñu confirme ñu jox ñu jox ma victoire ñu déggoo ma victoire bi yaa ngi dégg ñàmbe moo signé yaa ngi de président CNG bi laa seen signé dégg naa ko nag keroog mu ne dama jël. dama wut kayit. waaw nee na waaw jël say moom li ma wax mi ngi may accusé loo xamante ne nii. Mm-hmm. moom xamu ko sax te bu te pourtant moom affaire yi gën na ko naññee. parce que moom dem na CNG barki Alxuraanu Kariim di di defaat appel di def appel. biñ la joxee ndam. waaw moom woo nañ ko mu demaat defaat appel moom moom Thiatou Yarakh. man ñëw naa CNG manager am ni mu félicitation mbër. manager am si boobu. manager Thiatou Yarakh waaw mu grand doy. Mhm. yaa ngi dégg na mu félicitation bañ taxaw noonu waxtaan si lu bari. yaa ngi dégg manager borom baax la. Mhm. kon moom tey jii dem dem na CNG pour defaat appel CNG bi ne ko mënul nekk affaire bi si appel la yem Bulldozer moo def appel jox nañ ko victoire jeex na. yaa ngi dégg xëy na tey jii yi muy nii di wax pour saltel ga rek. mais moom dégg naa ko mu ne drapeau bi mu moom. yow am nga ndam kenn laaj ko drapeau. Ah, te en plus da nga jël sa wenn fooy wut say kase hmm. kenn xamul foo ko jëlee. di tamponné di wër fu nekk di woo presse bi. waaw naan leen ñëw ma wax. mi may accusé loo xamante nii. Mhm. te loolu noonu yëpp ay accusation loo xamante yu salte la. te te naa bañ a ñàkk man gisul benn presse ma woo ko. te xam naa ne benn presse woo ko man ñàkk ma fayda si benn presse. Mm-hmm. barke Alxuraan amul kenn ku ko woo ne ko Bulldozer dafa soof wala nangam ak nangam. yooyu noonu yëpp tey jii gis nga maanaam ñëg moo mel noonu tey jii nangu victoire si moom jox ma ko par par par la CNG. tey jii war moo ko wax noonu moom nee na yow da ngaa soxor. barke Seydina Mohamed soxor soxor musul nekk si man. Mm-hmm. xam nga moo ko metti yaa ngi dégg bi ma topp action bañ jox ma victoire te dama koy topp victoire man dama ko daan. dama ko daan jël bu gën nañ jël boo xam ne da ñoo ko nangu comprendre nga. Hmm. tey ji bi mu bi bi gàmb ji jeexee moom bi ma da instant bi ma daanee. Hmm. instant boobu noonu presse bi ngeen jubal si moom presse bi yëpp si man ngeen parce que réaction lañ bëggoon am. waaw mais parce que premier site bi dafa gàtt. yaa ngi dégg hmm. amul benn site booy dugg nga gis combat bi yaa ngi dégg. nga dugg si commentaire yi xool doo dégg ku ne ko yaa ngi dégg caatu yaa daan dañ ko naan da ngaa daanu. moom dugal na moom dafa dagg combat bi dugal ko si compte TikTok am yaa ngi dégg ba pare bloqué kii boo duggee boo duggee commentaire si kii am. doo mën a commenter ok dafa bloqué commentaire dafa bloqué commentaire dagg site bi yaa ngi dégg dugal ko si compte TikTok xam nga kon loolu amatul maanaam lu ñu siy wax wala lu ñu siy gaaral yaa nga def am naa ndam si koom. Mm-hmm. yaa ngi dégg na gëm yàlla gore te bàyyi wax yu ñaaw yi muy wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg gis nga wax bu ñaaw dëkkul fu mu jëm. fu mu mm-hmm. jugee dëkk te mi ngi may accuser yaa ngi dégg di wax yoo xamante ni non du yëfu góor yàlla. Mm-hmm. yaa ngi dégg te mu bëgg moom mu nekk góor yaa ngi dégg te xam ne ramb du dara. yaa ngi dégg te combat bi ñu bëree nii ma def gëgul ñu jox ma victoire am na fi combat yu demee noonu te ñooñu nangu nañ ko ku si mel Gora Sock Tyson mm-hmm. yaa ngi dégg kan moo ñibbi waaye victoire du Gora Sock. Gora Sock waaw bi bi bi kii dafay gëgul joxuñu ko victoire. ak mm-hmm. yeneen combat yeneen combat mën naa si yëngal plus de cinq yoo xam ne nu nga demee dañ koy nangu. xam nga kon am na yoo xamante ni ay détails jaru ko yaa ngi dégg jaru muy nekk si dëkk bi di ma di di wax loo xamante ni di ma waxal loo xamante ni du dëgg naan dama jël ay signature jàmbur loolu kon CNG bi na ma kon loolu CNG nañ ma kon ab bi loolu tey jii man sañu ma jël yow sa signature. Hmm. di ko def si kayit yaa ngi dégg loolu xagaatuma ko. loolu kenn du ko def. mais nga jógee ci combat boobu. Euh, yaa ngi yaa ngi feetu wala yaa ngi ci entraînement yi. non man maa ngi si entraînement yi. yaa ngi dégg. Mhm. man déggoo man neenaa naa nee naa dama naan dama nekk dama bokk si mbër yi nga xamante ni yaakaaruñ si Rambo. Mhm. yaa ngi dégg mais Rambo moo yaakaar si ñoom. Mhm. yaa ngi dégg man aw ma droit feetu. yaa ngi man dama bokk si mbër yi nga xamante ni. benn cinq personnes six personnes yi nekk si kaw di rek si millions yi. yaa ngi dégg nangu ñoo may benn booy chance man dama bokk si ñi ngeen fi war a jege. yaa ngi dégg. kon feetu instant bi waruma. li ma war mooy liggéey nekk samay entraînement combat ñëw ñu jël ko bëgg daan. mais bi nga bi bi nga ci jógee ak léegi coow li bari est-ce que lay woo di la proposer adversaire. ñu may proposer ay combat yu yu bëri. Hmm. xam nga dox nañ fi sama combat ñoo xamante ni ku nii daam seen doxoon nañ suñu combat xam nga. daam seen amul combat bañ dem jël tonnerre. Hmm. comprendre nga dox nañ fi sama combat yu bëree bëri bëri. Tafagar ñu ngi dox suñu combat man ak moom yaa ngi dégg. mais Tapha Leer moomu nag laa fi woo woon tey waaye xam naa xëy na peut-être démb daa guddee tëdd wala koo fi jàpp ko ba tax na ñëwul mais yéen ñaar laa bëggee gi xam nga laa fi woowoon d'accord mais bëggee gi moom nangul wax sax lugar moo tax man toog ma fi pour benn mbër yow joxe nga sa accord ci ci ci Tapha na man joxe naa sama accord moom moo moom moo xamagul ban tànk lay feccee waaw moom moo wax a góor lugar yaa ngi dégg te bu nagee kii dama ko fi bàyyi parce que bëri la mbër yi fi nekk làmb ji yaatu na yaa ngi moo tax nga taamu parce que tamit boo boo boo bu ma xoolee waaw non moom laa wax non pas taamu de promoteur moom bu ma xoolee ñi nga daan ñëpp est dama gis ku ci teg da victoire yu baax sax xool ku mel ni Zos wala nga xam te ne dañ ne dañuy waaj a saf dama gis ne ñoom ngay bëgg di bëre gis na tey ji booy ñi ngi def ay erreur si làmb mooy tey daan ñi nga xamante ne nii ay mag lañ war a génn nañ si làmb ji ba pare wala tur moo tax ñuy bëre ñoom hmm. déedéet mënul tax nga dépassé booy Mm-hmm. tey jii bëri na fi boo yi nga xamante ni bëri nañ fi ay combat ay mag yu bëri yaa ngi dégg bëri nañ fi ak ay mag yu bëri yaa ngi dégg tegal mënuñoo fexe ba dépassé say morom mm-hmm. seen ay morom ñi ngeen di daan de mais mënuñoo dépassé seen morom gis nga da ngay def nànk-nànk yaa ngi dégg di bëreeg say morom di leen daan yaa ngi dégg di yokk nànk-nànk di yokk gabari nànk-nànk yaa ngi dégg di entraîner ay entraînement yu intense nekk si ñun boog noonu la ñuy dundee làmb man làmb xooluma si ay mag mu ma am tur man samay morom yi nga xam ne ñoo fi ne di bëre yaa ngi dégg nekk si ay dynamique de victoire yu baax man ñu laa bëgg di bëree yaa ngi dégg sama manager bu ma waxee ay max dama ko naan ma ak benn mais fi mu toll nii fi mu toll nii fi mu toll nii yow ñan nga a bëree nii. instant bii nii waaw. instant man ak Modou Dia combat bu neex la. Modou Dia waaw te mënumaa bañ. waaw day jël sa revanche rek. waaw mënumaa bañ. parce moom bi mu ñëwee. moo moom caatu. moom kii jin bu yokk bi muy bëri mm-hmm. moom. moo jël avance bi. waaw daal di koy forcer jin ne ko jëgal booy bi booy bi dafa ko te mënoo ko gàmb la fekk jin doon jéem a bañ moom si boppam moo jëm moo jël avance bi. yaa ngi dégg jour boobu ñu ñëw jin bu yokk ñu bëri ma du ma ko daan ko jour boobu moo jël dafa jooy jooy yu métti si bi maa ngi ko gàmb mu sëgg di jooy. te dama ko bëgg a beral ay jooy boppam jooy jàmbur ko doon jooy. na ñëw ma beral ko <laughs> ay jooy boppam li na ñëw ma beral ko ay jooy boppam moo gën parce que tey jii ñun ay. jooloo yow. ba biir gaax yi waa yi bu duggee kon sama avance jooy bu kon sama avance. moo jëf ni daa mel ci li mu jógee nii. déggoo dama la wax ak suñu diggante moom ma jóge wax jooy boppam li ma gëm gaal wax te incha allah nga biir bu kon sama avance nga koy xam. mu jàng lay seetaan. moom jamono jii ñun toog ñu fi di xaar kenn yaa ngi dégg tey jii may wax ak Bulldozer ku ko bañ a jël ren déwén di ko bëgg mu tëgg ku weddi ah, gaajal ñu a métti ma ku bañ daaw bëgg yoo xamante ne doon dox suñu combat daaw ñu bañ mm-hmm. yaa ngi dégg ren ñoo may topp bëgg a bëreeg man soxla am yaa ngi dégg man ñi ma soxla instant bii mm-hmm. mooy ràmb jànk dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ngi dégg combat combat amateur man ay combat amateur gaay bëgg yaa ngi dégg mm-hmm. man dama bëgg supporter ak amateur bu dul moo ja waaw gars yi ñi ngi fi parce que mbër yi tey jii koo si topp diggam wala koo si topp turam di ko wax. bokk nga nag ci mbër yëpp adversaire ci làmb. waaw koo si topp turam di wax. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, maanaam mën na ne noo kii dafa may kii man dafa maa préparé wala kii maa xam ne si gàmm moo tax mooy tëkku yaa ngi dégg du jël sa avance mais bëri na caatu yow sax mi ngi fi. yaa ngi dégg boo génnewoo ko ci. non non ma ngeen si man samay morom. Mm-hmm. génnewu ñun ñun ñëpp ay morom ñu ma la ñëpp ay morom ngeen si gàmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg te ñoom ñëpp génnewu ma ngeen si yaa ngi ku paree pour ñu bëre yaa ngi dégg promoteur yi di ngi fi ñu tëgg suñu combat ñu bëre ku si bëggul tamit amul problème man maa ngi samay business gi jëntiwu mot kenn yaa ngi gàmb sax ñu ma siy gis bariwul dégg naa keroog caax naa damay dem si kii di di wane kayit naa nga mën a déedéet man loolu xagaat moo sama àdduna man bokk naa si mbër yëpp kakaas yoo xamante ne da man su ma bëree ba pare dem naa toog yaa ngi dégg kenn du ma gis ci mbir ci mbir kenn du ma gis si càmbar càmbar yaa ngi dégg damay dem toog gérer samay business yaa ngi dégg bu gàmb amee mu ñëw bëre des fois gàmb am ma ñëw sanca ba rafet tagg ticket VIP ñëw toog seetaan bu gàmb ci jeexee ma génn ñu taal suñu oto dem booy taal suñu dem. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo tey Bulldozer laa fi dalaloon ak nga xamante ni mooy Tapha Leer mais Tapha Leer jotul ñëw moo tax tey jot nañu waxtaan ci loo xamante ni bari na ndax lu bari bëggoon nañu mu leer ndax am na lu fi caatu yaa jotoon wax moom tamit gaa dañu réclamer pour ñu woo ko mu ñëw leeral lu bari gis ngeen mbokk yi leeral na ko. Euh, soo amoon kàddu yu mujj lan lay nekk. waaw di sant yàlla di julli si yonent bi xam nga di sant suñu ñaari waajur. Mm-hmm. di sant euh, Thierno Madani Tall bu baax a baax a baax di sant Thierno Seydou Nourou Tall mu ndaw xam nga di sant sëñ Sidi Mbacke Arxugan di sant ñi ñu ñaanal di sant képp ki nga xamante ni day bëggee Bulldozer waa parcelle amu seen fay. suma grand am di ñoom petit waa café gi waa unité 12 gars yi sama booy Aziko yi ñoom amee top xam nga ñoom mooy sa métti gaa yëpp aw ma seen fay di waa Malika aw ma seen fay ak waa Yëmbal Kër Massar staff Bulldozer maa ngi nuyu ñëpp yaa ngi dégg di bëggee ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi si ginnaaw Bulldozer di sonn si moom loolu nga koy bëggee te xamula maa ngi bëggee di ko jaajëf. gis ngeen mbokk yi moo ngi bëggee ñëpp di leen ziar di kontaan ci moom bu baax a baax ndax bi ma ko woowee yombalal na ma affaire yi euh, comme ni ma ko waxee chaque jour rek ñu ak yéen ñoo bokk liggéey bi saa bu leen woowee dafa fekk mu nekk loo xam ne day yomb ci ñun ndax euh, ñu bokk teen ñooy laxasay goj di kontaan ci moom di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax na li nekk ci kanam moom yàlla na dàq li nga xamante ni moom la jot a romb di leen jaajëfal di jaajëfal sama cameraman di leen jox dig daje beneen yoon beneen jàmmaarloo ak yeneen ba jaa ngeen jëf